tudd Abdoulaye Ndiaye Ngalgou di euh, candidat la maire de Tivaouane di président de la coalition And Defar Tivaouane bon li andi li andi euh, caravane bi li ko waral mooy jeunesse bi ñoo ko organisé donc man ma profité woon si occasion bi pour mën a lancer waale un programme bu ñuy tuddee les sept merveilles donc mën a def benn petit exposé pour la population de Tivaouane pour ñu xool Tivaouane tey ak Tivaouane suba fi ñu ko bëgg a yóbbu donc yàlla def na tey on a projet pour euh, pour le marché au nouveau marché, pour une nouvelle université et aussi pour euh, la nouvelle corniche ak le cœur de ville ak li nga xam ni tey mooy aménagement et réfection des zawiya euh, de la xadra beneen bi si topp aussi tamit mooy li nga xam ne moo moo soxal jeunesse bi mooy euh, le stade municipal le nouveau stade municipal de Moustapha El Hadj Moustapha Niang donc loolu moo warloon caravane bi tey mais ni ñu ko gisee jàpp nañ caravane bi nekkutul caravane xale rek ndax mag ñeeg suñu papa yeeg suñu yaay ñëpp si ñëw ànd donc pour wan ni tiyaan itteel na leen beneen bi si rek mooy ñu profité si occasion bi vraiment pour lancer un message ak ñi nga xam ni tey mooy ñooy suñu naataango yi nga xam ñoo seex politique bi si Tivaouane pour ñu rafetal ko jàpp naa ni tey ñun ñëpp ay doomu Tivaouane lañ defe naa ni tey ku mën a gañe suba nañ xam ni tey duñu duñu duñu gouverner fenn fudul Tivaouane donc ñu ngi lancer message pour que vraiment élection yi mu nekk élection yu dal élection yu am jàmm élection yoo xam ni tey mu bañ a am violence ndax defe naa ni ñun ñëpp ñoo bokk ndey te et puis tamit Tivaouane gi nga xam ne moom lañ seex defe naa ne amul lenn lenn lu ñaaw li fi lu fi war a am ndax war nañ jox cër suñu kilifa yi nga xam ñoo fi nekk du xalif bi la xalif général des Tidianes jox ko cër aussi tamit ñi nga xam ne tamit mag ñu baax ñu fi tëdd donc jàpp naan Tivaouane ku xam dañuy xam dëkku jàmm la dëkku salaam la dëkku euh, euh, ville religieuse la boo xam te war nañ ko war xel donc message la amoon vraiment bëggoon naa ko lancer sama naataaw yi nga xam ñoo seq politique bi parce que ñun ñëpp ñoo seq jàmm ñoo seq Tivaouane donc maa ngi ñaan yàlla aussi ki nga xam ne moom la war a teg si kaw dëkk bu ko yàlla dogalee aussi tamit ñun ñëpp ñu ànd ak moom jàppale ko ba Tivaouane gi ñu bëgg mu nekk Tivaouane gu gën Tivaouane tey ji asalaamaaleykum mbokki Tivaouane maa ngi leen di nuyu ku nekk ak turam ak santam man la Abdoulaye Ndiaye Ngalgou seen doom di candidat la mairie de Tivaouane maa ngi jiital si nuyoo bi la xalif général di Tidiane Serigne Babacar Sy Mansour di ko nuyu di ko ziar di ziar njaboot maam Seydi Hadji Malick yëpp di nuyu aussi kilifa diine yi nga xam ni ñoom ñëpp ñoo nekk ci dëkk bi di leen nuyu di leen ziar di am yéene bu ma am ci dëkk bi di wax waa Tivaouane bis bu yàlla defee ngeen dénk ma mairie bi am naa yéene soppi Tivaouane yóbbu Tivaouane vers le changement. maa ngi partager ak yéen projet bi nga xam ni tey moom laa waxoon waa Tivaouane bis bu yàlla defee ñu jox ma dëkk bi mu tuddee ko les sept merveilles les sept merveilles bi si jiitu maa ngi koy woowee les quatre portiques d'entrée maanaam ñeent buntu duggaay yi nga xam ni boo jógee Dakar di ñëw Tivaouane. wala nga jóge Mboor di ñëw Tiwaawan wala nga jóge Ndar di ñëw Tiwaawan wala nga jóge Tuubaatul di ñëw Tiwaawan ndax jàpp naa ne dëkk bi kuy gan boo fi ñëwee mën ngaa dugg Tiwaawan ba génn te doo xam dugg nga Tiwaawan loolu moo waral ñu am yéene bis bu ñu yàlla joxee dëkk bi ñu fexe ba taxawal buntu duggukaay yooyu buntu duggukaay yooyu nag ñu ngi koy symboliser photo sunu maam maam Seydi Hadji Malick Sy di nga xam ne mooy sunu wasila du mooy sunu sëriñ الأبرار سبيلهم سلكوا ربي من أبرار maa sama yéene si li nga xam ni tey bokk na sur les sept merveilles muy le nouveau marché marché bu bees bi nga xam ni bis bu yàlla defee njox ma dëkk bi moom laa bëgg a fexe ba samp ko fii si Tivaouane ndax jàpp naa ni marché bu marché bi fi nekk gis ngeen ni mu mel defe naa ni chaque ñaar chaque deux jours ngeen gis ci télé bi commerçant yi fa nekk di manifester wu ndax ñàkk hygiène ñàkk jumtukaay yi nga xam ne moom marché soxla moo waral bi ñu fa demee ci marché waxtaan ak commerçant yi ñu jàpp ni dafa jot ñu taxawal marché bu bees marché boo xam yi tey liñ suñu yéene mooy ñëpp ñoo xam ni tey ay jaaykat ngeen ku yor table ak ku mën doon ñëpp nañ la mën fexe ba dugaleen si biir marché bi ndax marché boo xam tey marché bu am sécurité boo xam ne tey dina am ñeent bunt quatre portes d'entrée nga xam tey bu yàlla defoon mari détail li euh, lakk am sàpp dina mën dugg fay lakk jàpp naa ni tey bis bu yàlla jox ñu dëkk bi bëgg nañ képp koo xam ne borom table nga ak képp koo xam ne da jaay jën wala da ngay ñëpp nañ leen dugal si biir marché bi nga xam ne si biti kenn dootu laal table biir dina tax dem bi bi mën a yomb dina tax aussi tamit jigéen ñi nga xam ne tey ñoo di ñëw marché dinañ sawar ñëw si marché bi ndax jàpp naa ne marché bi fi nekk jot nañu changé ko te marché bu yàlla dimbale ba ñu taxawal ko ñu ngi si am yéene tuddee ko ki nga xam ni tey mën naa wax lépp moom la muy sunu maam maam Fawade Wele nañ ko tuddee marché central de Tivaouane bu maam Fawade Wele bu ñu ko waxee defe naan tudd nañ ñëpp. si sama yéene ba tey li nga xam ni tey moom la xale yëpp soxla muy Tivaouane dafa manqué infrastructure sportive jàpp naa ni fii nga xam ne moom stade bi la stade fi mu nekk stade municipal. vraiment di rendre hommage suñu papa di l'ancien maire Moustapha Niang ndax moom yàlla def na moo ko fi taxawoon te jàpp naa ni tey depuis boobu ba léegi yàgg na te xale yi tey jot na Tivaouane di am ay professionnels yu fiy jóge te loolu pour mu am il faut ñu taxawal stade bu bees stade bi li ñu jiitu li si jàpp mooy dañuy am yéene taxawal benn stade sport stade boo xam ni tey footballeur mi ngi si handballeur mi ngi si basketteur yi ñu ngi si képp koo xam ne yaa ngi def di nga gis sa bopp si biir stade bi stade bi fi mu nekk dafa am ñaari raison yu tax ñu war ko délocaliser benn bi mooy barab bi nga xam ni tey fa lañ denc suñu sëriñ di sëriñ Cheikh Tidiane Al Maktoum dañ fa suñu wayju sëriñ Pape Malick Sy ak njaboot sëriñ Cheikh yi fa tëdd ñu jàpp ni tey jot na ñu ñu délocaliser stade boobu beneen bi aussi tamit tey fi stade bi nekk defe naa ni dëkk bi wër na ko te jàpp naa ni tey ba fa dara amoon musiba amoon dara am fa defe naa ni ña fa dëkk duñu nekk en sécurité moo tax mu jot ñu ne nañ jël stade bi délocaliser ko defar stade bu bees stade boo xam ni stade municipal multifonctionnel ñu tuddee ko waat le maire El Hadj Moustapha stade bi nag laa bëgg a tamit ak waa Tivaouane. may fësalaat sama yéene si projet bi nga xam ne laa tuddee les sept merveilles jàpp naa ni tey Tivaouane jot na Tivaouane nekk vitrine waxuma vitrine rek Sénégal mais vitrine ci Afrique ci àdduna bi. ndax fii nga xam ni tey fa lañ taxawal eaux et bi te mu nekk ci carrefour bi ñun jàpp nañu bis bu ñu yàlla joxee dëkk bi ñun dañ fexe ba délocaliser eaux et forêt boobu bu ko délocaliser dinañ fa taxawal benn cœur de ville ndax dëkk dafay dund. ci biir cœur de ville bi suñu yéene mooy lu ñu jagleel xale yi dina am manège foo xale yi dañ am fu ñu bëgg a fu ñu mën a foowee dina am aussi jardin public. dinañ fa def aussi ay buvette def fa aussi restaurant pour sécuriser lieu bi dinañ fexe ba ci carrefour bi dinañ teg ay feu rouge maanaam ngay jóge Mboro ngay jóge dakaar ngay jóge ci yoon bi yoon Touba Toul ngay jóge aussi tamit ci yoonu Ndar bi ñu teg fa feu rouge ndax carrefour bi defe naa ni chaque jour ni yéen ko gisandoo dafa bari vraiment circulation dafay danse foofu donc jàpp nañ ni tey jot na vraiment ñu taxawaat dëkk bi dinañ éclairer yokk éclairage public bi ci dëkk bi yëpp nga xam ni tey booy dugg Tivaouane ba bi ngay génn dëkk bi dina leer naññ loolu bokk na si suñu yéenee